express léegi-léegi aywa la sàmben ñu euh, tàmbali euh, euh, lu jëm ci xibaaru jaww ji ñaareelu pàcc yi ma nuyuwaat la ma fayaat la bu baax soxna Faty di nuyu ñi soog dal ci info matin donc on y va pour la météo en express euh, boo xamante ni elle est la formation de cellules orageuses maanaam euh, asamaan si elle n'est pas il n'est pas couvert ce matin euh, niir yi dañuy teew ci asamaan si donc attendez-vous à ce que partie bi mu taw fële mu taw fii mu taw fële du taw comme il comme muy demee rek euh, fan yi puisque niir yi sont un petit peu éparpillés le ciel donc noonu lay euh, noonu lay taw bi di euh, di tëddee ci asamaan si donc au sud euh, faible quantité attendue sur la moitié nord euh, risque de pluie lañ fay xaarandi en tout cas côté température variation bi moom elle se fait diggante 24 degrés di pour Kédougou fu degrés maximales situé diggante Matam euh, Saint-Louis 25 à Dakar 26 degrés pour Kaffrine digg bëccëg. on va retrouver le soleil sur la partie nord euh, du pays diggante Saint-Louis euh, fu mel ni Matam Diourbel également soleil bi ñu ko fay xaarandi ànd ak ay niir et puis sur l'extrême sud du pays taw bi mu ngi concentré wu sur la partie Ziguinchor Sédhiou Kolda ainsi que Tambacounda toujours en faible quantité lay doon mu ngi noonu température caniculaire à Matam 44 degrés 40 à Diourbel 33 à Saint-Louis 32 à Dakar 38 ci Kaffrine et puis surtout le sud sud de pardon 36 degrés lañ fay am euh, diggante Kédougou taw bi day rafraîchir tuuti température bi c'est normal mais retenez en tout cas euh, chaleur euh, extrême humidité taux d'humidité bi guusaay euh, la ñuy euh, nemmeeku et puis de la pluie en faible quantité localisée à l'extrême sud du pays les points forts de la météo d'aujourd'hui pour la Euh, marée mu ngoog 11h28 la géej gi dina rafes 23h53. marée basse euh, prévue euh, vers 17h si mes souvenirs sont sont bien bons. 25 mm-hmm. minutes exactement mu ngi noonu l'heure de pêche comprise entre 16 18h activité moyenne aujourd'hui donc mm-hmm. dañ ciy demee yaakaar rek comme ça su ne le soleil 7 h ci la bët di set 18h46 euh, jant bi nar a euh, rek ba ëllëg incha allah et puis durant toute son illumination l'indice UV ultraviolet euh, est

retrouve demain incha allah euh, ci DER de la